Salut les amis de e-Sport TV, merci encore de la confiance nous renouvelée, merci de vous like, merci de vous abonner, merci également de baisser les commentaires, un plaisir vous renouvelé gars, chaque fois de partager une information. Hein. Moi qui Sénégal il fait full maintenant 14 régions du Sénégal la dina wërgal këpp ñi ngi leen di jaajëfal ñi nekk également ci lal hôpital yi ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ñu wër ak jàmm ñi nekk ci kaso yi nga xam également erreur judiciaire ak génn leen lu ñu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génn leen fa dellu leen ci yoonu dëgg ak seen njaboot ñi dëddu àdduna également suñu borom xarale àjjana fi daw si gars yi te on avance ensemble dans la magie de e-Sport Sport TV l'actualité en continu dañuy waxtaane ci li nga xam nak nag jëm ci ki di Antonio Conte mi dina jox ki di Pape Sar 45 minutes de jeu pour également jox chance am Aliou Cissé bi comprendre la situation bu Idrissa Gana Gueye ak Moussa Ndiaye bi nga xam dañ dañuy day dem du côté du FC Bruges loolu la ñuy daal di mais d'abord, abord yéeni bi nga xam nak nag donc stade ci xatam nga njëkk Diallo et Gana en instance de départ Abdou Diallo mom la wax rek un avenir euh, loin de Paris Gana la tentation d'aller au bout de son contrat loolu la wax Aliou Cissé sélectionneur des Lions nous allons

li nga xamné moy mooy jogante yi leen di xaar ci fenêtre coupe d'Afrique bi coupe du monde bi donc nek équipe bo xamné aussi dañ ko wara a yeesalaat na am na ñoo xam donc ñom ñoo yoroon équipe bi té légui jëm nañu mak donc Moustapha Gueye di préparé wu basket ba léegi ah, ki nga xam ne nag mooy Joel Embiid ah, moom donc officiellement français ndax Cameroun la d'origine dafa jël nationalité française am nak pour mëna sol maillot équipe nationale de France jëm ci jogante yi coupe d'Afrique bi coupe du monde yi waja ñew donc mom daal loolu la daal di gis ba tay parenthèse bi dellu ci suñu gaynde jigen ñom tay elles sont toutes au complet ah, ñom ñëpp mat nañ par rapport ñi nga xam dañu xam ne dañoo Covid yi di ñeen ñun dañoo mën ay gaañu gaañu ndaw ñoom ñëpp dal mat nañ ñoom ngeenaan ñaay ak ñoom ñëpp ñu ngi ci ay ñoom Eva Neymar pour waajal seen match contre Zambie et que tay li ñuy xaar ci ñoom mooy ñu daal di gagné match bobu inshallah allahu rabi félicitations également à Boubacar Boubacar Gadiaga ancien entraîneur bu euh, Jambar bu Sali nek également membre staff équipe nationale Sénégal ci ay jamono mom nak ci deuxième division bu Maroc lañ ko tab mu nek euh, co-meilleur entraîneur ci deuxième division donc loolu nek xamné luy rafet la ñukoy koy rafetlu di bonne chance parce que du mom kese mo fa nek parce que aussi y a hein, donc Demba Mbaye Dufus nga xam ne yor équipe national olympique ki yor équipe nationale locale nak di Pape Thiaw moom ne lim bëgg ni ni moy top ci tanku nem ci yalla Joseph Koto gannaaw ba nga xamé né amna na jéego yu mu def ci équipe nationale bi donc bu jéem euh, top ay tegtalam ci lim mu même dynamique bi ki nak di Moussa Diousé donc mom jógee na ci Saint-Étienne dem ci nak ca Grèce championnat donc première division Grèce fek fa ñom donc euh, ñi di donc ñom Pape Abou Cissé ay ñoom euh, ah Ousseynou Ba pour d'aller di jouer fofu mom mi nga xamné amul won temps de jouer du côté de Saint-Étienne on lui souhaite bonne chance Moussa Djoussé. ki nak di Moussa Ndiaye moom itam ah, donc euh, dañ ne selon les dernières informations Bruges daal moo bëgg jël donc Barça mi ngi négocier pour mu daal dem Bruges Moussa Ndiaye nak di international sénégalais hein. donc ci espoir yi défenseur la tambalé nak ci jamono bu Guédiawaye moom aujourd'hui ci équipe B bu Barça lay évoluer Moussa Niakhaté également reprendre na avec ñi nga xamné nak moy donc ñi di Nottingham Forest di club am ci Premier League donc ñu wajé sen jogante yi hein. donc ci première division fi nak ne nii nag ci jogante xaritoo yi la ñek préparation bi donc ñom dañu tembo zéro bi partout Moussa Niakhaté joué na et que wane na fa bopam. gannaaw nga xam nak nag di Edouard Mendy njool Kumba Mouta Goré mi nga ci Chelsea kii di di donc di Kalidou Koulibaly bu fa demee aussi fa fekk ben xaritam benn doomu nday mu ño nga xamné ñom ñoom ñaar ñoo du côté du Napoli nek retrouvailles yoo xam ne yàkkamte ñoo ko man sincèrement je pense que né à défaut dem ci Barça et tout bu démé Chelsea Chelsea c'est une très grande équipe pour Kalidou Koulibaly ki nga xamné également moom mooy donc LOSC ñom Mohamed Bayo le Guinéen donc ancien attaquant de Clermont jamono ji nga xamné mo nek meilleur buteur euh, africain ci Ligue 1 française mom dal ñu ko jënd 14 millions la ñu teg ci table je pense que c'est un bon choix pour Mohamed Bayo et on lui souhaite bonne chance pour la suite Skamatcha aussi nga Paris Saint-Germain ñoom fi mu ne dafa mel ne fay 40 millions yi nga xam ne moom la Sassou Lo di laaj ndax dañoo jàpp dafa bëri donc mais nag West Ham moom dafa bëgg doubler Paris Saint-Germain ndax moom nee 40 45 euh, ba 47 millions la bëgg a ci table bi bonus tout compris pour daal di jël Scamacca bi Mancini nee na Scamacca bi ma doon yow damay dem ci Paris Saint-Germain PSG say no to Ronaldo donc loolu la ñu wax ñu ne Paris Saint-Germain moom Ronaldo dañ leen ko proposé Jorge Mendes di agent moo ko proposé Paris Saint-Germain nee actuellement amuñu place ndax suñu effectif bi dafa fees loolu daal dafa mel ne benn manière la rek benn yoon la pour wax kii di Cristiano Ronaldo fi ne ni bokkoo suñuy place plan plan wu Juventus de Turin nak day tourner wat ñaar ni di ki nga xam nak moy Paul Pogba ak Angel Di Maria ñaar yi ñi nga xam ne ngi évolué wat du côté donc de la Juve ñëpp yaakamte gis eh, double bi nan lay démé ñom ñaar nan la wone sen bop fofu non ci Italie gaay est ce que xam ngeen ne du côté du Real Madrid dix Allemands au total dix Allemands ñoo fa jouer donc kenn kaa ngi ni Anthony Rudiger bu le mënee lib yeneen neuf yi aussi ngeen lim ko gaay histoire pour football aussi dañuy bokk ak yéen di échanger ci lool ça permet aussi ñu développer suñu culture générale donc Rudiger dixième Allemand également avoir évolué sur les couleurs euh, donc sous les couleurs du Real de Madrid kii nak di Aliou Cissé mom nga ca France donc nak mom nee dafa dem ca France ngir xol wajurum bu jigéen nga xamné ñaari at a ngi ak lu tek gisu ko waaye aussi dem waxtaan ak yenn joueurs yi nga xamné aussi ñi ngi ci équipe nationale bi ñeneen yi nga xamné aussi bëgg nañu ñëw ci équipe nationale bi donc mom nak dem ben euh, yéenikaay bu France moko eh, dalalon mu waxtaan ci né nak équipe nationale bi mom lu mu comprendre aussi kaw ki Idrissa Gana Gueye nee lutax ñu bëgg wax Idrissa Gana Gueye deful dara Paris Saint-Germain alors que il n'est pas le plus nul au niveau du Paris Saint-Germain lim fa wane également am na ñu bëri ñu nekk Paris saint wuñ ko tubu guñu leena jaay lutax ñu koy jaay nee na comprendre Antonio Conte mom limu comprendre ba comprendre moy que tay tey effectif am dal am na ay joueurs yoo xam ne yu xarañ lañ motax jamono ji ah gars yëpp ñu ngi naan Conte mom day ray joueur am parce que physique bu mekk la leen tegal mom nee aujourd'hui gis na né joueur am nak motivation am nañ ko et que saison bi ñu génn mom mom jamono bi mi ñëw donc permettre ko mu am limu mu bëggoon dëggantaan moo ren nak day nekk saison complète mom mi nga xam jël na championnat ak Chelsea ah donc mom fi ne ni mu bëggaat mooy jël championnat ak Tottenham et ci lolu nee na joueurs yi nga xam ne nekk nañ ci effectif tey les plus méritants ñi gën a mérité seen place dina leen ko jox ñu daal di wane également seen i seen seen i mën-mën seen xarañteef ci terrain bi bokk na ci également ki nga xam ne mooy Pape Matar Sarr entre autres Antonio Conte nee na ñoom muy Pape Matar Sarr yeneen joueurs yi donc notamment Pape Matar Sarr mérité na am 45 minutes de jeu ci préparation yi pour xool ko xool lan la mën donc Pape Matar Sarr donc Antonio Conte dina ko jox chance am jox ko 45 minutes mu jouer comme ni mu koy defee nee na pour yeneen joueurs yëpp ci 45 minutes yooyu nag Pape Matar Sarr mooy wane boppam gis nañu également comme je dis Pape Matar Sarr tey ah mooy li mu joué ak ñoom eh, kii di ñoom Sadio ak ñoom kay du ko di bari au niveau de l'équipe nationale jël coupe d'Afrique tax na mu décomplexé moo tax boo gisee entraînement Tottenham da nga mën ne booy bi complexé par rapport ak jeune star fa nekk et tout ngi joué à l'aise mi ngi def entraînement à l'aise et aujourd'hui li war a gën a travailler mooy physique am muy entraînement bi corpulence ko mais dañu bëgg mu tay gëna renforcer parce que c'est un joueur bo le Sénégal compte énormément énormément sur lui et que joueur bo xamné beaucoup apporter à l'équipe nationale du Sénégal moi personnellement je connais son père donc euh, ki nga xamné c'est aussi un grand monsieur un ancien international un entraîneur maga Magamagamak. et que qu'aujourd'hui Pamata est né dans une famille de footballeurs et que tay le pire qu'on lui souhaite moy mu réussir du côté de Tottenham donc euh, c'est le moment où jamais mu daal di parce que phase préparation il ci si jógee rek dem ci li nga championnat et que tay temps de day la koy soxla pour mën a espérer jouer pour coupe du monde bi coupe d'Afrique yi di ñëw donc et pour cela donc il doit faire ses preuves du côté de Tottenham su ko mënul mu daal di wax ñu abale ko wala mu dem beneen club aussi pour am temps de jeu parce que c'est important pour son âge moo am mën di jouer gars yi c'était les informations que je voulais vous donner les premières informations de la journée toujours un plaisir de vous servir nan ngeen xalaatee jëlee Aliou Cissé wax ci ñi nga xam ne Idrissa Gana Gueye Pape Matar chance bi ñu ko jox pour yéen nan la ko war a saisir ki nga xam mooy du côté de l'Angleterre Moussa Moussa on dans la de Sport TV